son bu Diop loo indi tey. mi ngi doon tey ñaan nag saa may ma congé. congé waaw ah, damaa sonn. non non kii la noo ko wax. la. entreprise ah, Baol Baol amul congé. déedéet nee saa ko wax. ay waxam la mi ngi nii toog. pàcc ah, lambaay dañoo am congé. ñoom ñooy suñuy mbokk congé amul. ah wax nga dëgg. non du loolu dama sax dama dama sonn rek a noppalu rek. du loolu damaa bëgg eh, damaa bëgg a noppalu rek. son bu indi loo indi tey. Adja tey dama indi doomi jàmbur joo xam daal damaa bëgg ñu sauver ko su fekkee li ñu koy waxal du moom waaw te sax ba keroog muy àgg daal man li ma yaakaar du moom. Mhm. dafa am benn numéro 9 boo xam ni. dañ koo gisoon ci manifestation bi mu yor pistolet. boo xam ni police bi ñu identifié. Mm. ak di wane bokk na ci kooku noonu ñu wane woon wane ni kat kii daa yore woon pistolet di def ñaaw teef te bokkul ci waa police. gars yi nag dem loqali koo xam ni dañuy dem jëli élément bi nga xam ne moom lañu moo di jox kii li ñu Modou di bëgg a jox moom lañ jiiñ ñi moo solo numéro 9 bi génn na nag def ay vidéo yu baree baree bari nee ci coppet wan leen ko moom mu waxal boppam Modou Diouf. xamante man mii dañ may sosal ki ma sosal nag mooy ku jigéen kooku doon woote du bàyyi lii première part rek laa def du bàyyi. dama koy topp ba kuur dalaaxee ndax sosol bi ma sosol dafa ëpp ba si kanamu yàlla dama doon nalaw ku ne di ma woo téléphone ku ne naan ma ñu ñu xoolal liñ la defal ñu ñu xoolal liñ la defal loolu moo tax ma jóg pour def vidéo bi pour leeral sénégalais yi man maa ngi nii fu mu toll nii nag site yëpp télé yëpp ibil naa leen sama bunt fuñ ma woo dinaa leen fekk si wuyu si leen ñu waxtaan ci loolu man duma néer bi kenn duma baadoo la bay nekk néer bi mère boobu nag ku ma tooñ la ndax yàq na sama famille lu ñaaw yàq na sama papa lu ñaaw ku xam sama papa xam na kuy sama papa bu baax a baax billaay wallaay wa taala ay doomu yaafus ay doomu yoo xamante ni ay doomu bandi wala ay doomu saay-saay sama papa jurul loolu ay jàmbaar la jur ñu ñemee ñafe ñun suñu yaay ba ñuy daje deseg moom ay xale yu ndaw lañ ba tey boobu ba tey dañuy ñafe di jox suñu yaay affaire bi doxu machine tunkara yow laay waxal kooku noonu information yu mu la jox faux information la man maay ñuñu man maay ñuñu Abdou Khader laa tudd kunta ñu may wooyee ñuñu donc kon Sambo li muy wax xam ko lépp ay fen la li muy wax yëpp ay duul la billahi wallahi wa li muy wax yëpp ay duul la Parcelles Assainies laa dëkk ku ñëw parcelle dëgg may gis kuy def loolu nag wala ngay def lu bon ci àdduna man pour man da nëbbatu pour man kuy def lu bon wala ñu lay wër da nëbbatu ñu ne fàng kenn ko jeex man maa ngi nii du ma fii voilà mi ngi noonu xam naa topp bu ko defee nee naa kon bàyyil di yëlëb sànni waaw boo yëlëbatee del raxas raxas nag mooy xool ba ca biir xool li nangam ndax waa ji tudd na ay kàddu yoo ñu ngi koy jéggulu aja kii tey la indi mhm. boo gisee ma ne bu ñu sàggantul ñu rey doomi jàmbur nag mhm. site yu bëri fi mu toll nii mere nañu ñu doon def ay ñaawteef ba gis naa ñu bëri ñu bind ñoo xam ne ñu ngi naan booy pare leen boog kon boog waajaa ngi noonu am mbët mbëtt mi feeñ na mhm. léegi loolu mooy kon ciblé maanaam ciblé leen ko mooy mbëtt maa ngi nii feeñ na fu ngeen ko mhm. gis na nangam te itam man defe naa ni saa dafa doon euh, wax benn affaire ci genre photo yu mel nii gis nga problème yi mu ne bu ñu ko moytuwul dara dina am ma mere la ci koñ nga nekk sama noonu ma dem jëli ji sa photo kolaas ko ni nga waajaa ngi nii mm-hmm. man nag tooguma ko fi fii voilà voilà moo tax man nag tooguma pour défendre que waa ji carrément moom la ak du moom mais dama gis ni rek lii erreur la bu am que mm-hmm. bala ñoo jël photo jàmbur di ko posté di wax ni diw la wala du diw dafa war a leer nee na nag ubbil na ñëpp ay buntam ñun tamit ubbil nañ la suñuy bunt 75 449 23 23 lii benn extrait la bu ñu jël ñëw toog nga ñëw toog itam ñu waxtaan 75 449 23 23 Omar mooy waa ji comme nee na du moom danay jàpp ni du moom ba leneen di feeñ quoi mais man li ma njëkk a du moom génnam bi mbir mi daa am fu mu jóge mooy police bi moment bi ñuy génn di wane ay vidéo naan nii nii nii pour man moment boobu moom li ma xamoon ci police ak gendarmerie bu dara xewee dañuy bind un communiqué da nga communiquer expliquer yam foofu parce que ñoom c'est la grande muette seen wax warul bari ko mais ñëw nañu expliquer tey euh, nit ñu toll ci ni numéro 9 bi diw la wala du diw ba xale yi jëlee ay vidéo teg télé tubaab bi dugg ci loolu moo indi tey di xew nii yëpp ba ku kun jot jiñ la ko mais gëm naa ne vidéo police boobu bu génnul woon du egg ci niveau bi ndax mbir yàgg na fee xew. Mm-hmm. te egguñu ci niveau bi. Mm-hmm. mais li naan qui s'explique s'accuse maanaam. booy weddi di nga weddi di weddi weddi ba dugal sa bopp te doo ko yëg yenn saa yi te mbir mi lu mel noonu da cee xaw a am mais pour man police bu ñu yemoon ci bind communiqué yam ca def seen liggéey ñoom koroog wax naa ko fi ñoom bu ñu gisee ab vidéo waaye bu nekk ab nervi bi wala mu doon ko fu mu mën a fare pour man la travail de la police nekkul woon di ko publier dana war a dem xàmmee waa ji identifier ko wari ko mm-hmm. buñ ko waree ba xam ne moom mooy kan ñu wan ñu ko nag te daan nañ jàpp sax ak malfra ab bandi mais da daan wane ginnaaw ñu sàmmal ko ak ak yelleefam mhm. ba parce que ki ñu jàpp te atteegul la rek présumé innocent nga maanaam day njot ni defoo ba lay atte di la teg ay daan tey pour man bu loolu amul woon lii lépp du am beneen lii nag njëkkawul tey dafa commencé di xew parce que gis nañ fi ab maire bu mag son yi bu mhm. ci dëkk bi génn fii guddi présenté ñu ay booy mhm. na booy yi ñoo bëggoon a taal sama kër à visage découvert d'accord mais loolu ab civil nan la ko sañee ci moroomam maanaam jël sa moroomu civil jàpp ko présenté ko ci réseaux sociaux yi ne kii moo bëggoon a taal sama kër te dara fekku la ci te moom mi ko def dara fekk ko ci ah, manaam li nekk ci réew mi tey jii maanaam xale yi boo leen day yedd c'est bien mais pour man mag ñi ñoo war a njëkk a yaru ba noonu Ah, macha allah jërëjëf bu ci xajaatee rek Omar ñu ñëw kii euh, Souka mm-hmm. waa ji de def na ay vidéo yu baree baree bari nag xaw ma ndax tiit la wala bëgg a setal deram wane ne yaayam ko sonn la yaayam li mu liggéey du dem di nekk ab nervi mais xale yi daal collage na ay kiyam ba joxe identification yu bari daal ni waa ji moo yoroon pistolet euh, euh, sooy bu man kii laa àndal waa ji laa àndal xam naa lan mm-hmm. nit ki di nga nekk sa noonu mu def la loo xam ne bu ëllëgee mën na la ca mën na la caa mm-hmm. benn moom nee moom la nee na moom du moom dañuy jàpp ni du moom ba keroog da leen di ñëw benn moom mën nañ ko mën nañ ko ci defal mënoon naa génn kenn ke neen dañu ko waajaa ngi nii mën na génn mënoon na génn rek ñu gaañ ko mhm. te kenn te ba pare mën naa doon tamit soutien de famille ñee na sama yaay pauvre nu bokkuñu ci lii bokkuñu ci lii mhm. loolu sax lépp dëgg la mais moom ci boppam kenn ke setal na deram te mi ngi ci yoon mu mhm. ngi ci cadre yoon ndax nee na mi ngi ci yoon na continuer dem ci loolu ba te ba pare bu mu bàyyi mu sedd warut a yem dañ ko jël à la parce que des fois rek ñu jël kenn rek daal ni lii ak lii kii nii après ñu bàyyi ñu beneen beneen yoon ñu ni nan baale keneen ñëwaat mm. defaat lii ñu ni nan baale day bëgg yomb parce que mën na génn rek ñu dóor ko ba ñu dóor ko dara wala mu génn ñu dóor ñu defal ko ñoo xam du naka su dul noonu na dem ci yoon te lu ko lu ko ci may lu ko ci yoon may rek mu jël voilà waaw mi noonu mm. Adja waaw photo bi ñu bi ñu bi ñu nekk ci ginnaaw uh, kii bi. Mhm. vidéo bi. Mhm. waa ji dafa mel na policiers yi gis nañ ko de. moo ko jox arme bi bi ñu gis. waaw mu numéro 9 benn benn kii uh, xam nga policier la xam gendarme moo ko jox arme bi mu yor. mais moom moom nëbbul kanam gi ah parce que am na beneen vidéo boo xam da ngay gis nii kanam gi pourquoi ñu ciblé jaamur bi. ni moom la ni mu def kaala gi noonu ah, am na feneen mu gën a leer si bi muy daw ci tali bi noonu am na foo xam ne kanam gi feeñ na mhm. kaala gi nii rek la def mais kanam gi dafa dafa dafa feeñ carrément man gis naa ko ci vidéo yi ma doon xool ci internet bi mhm. gis nga lii te des choses yoo xamante ni dafa graaw parce que aussi nga jóg ciblé doomu jàmbur je sais pas xaw ma ku ko def yaay ne mi ngi wax femme bi wax man xaw ma ban femme moo wax gisuma vidéo bi nii rien mais lii daal lu nu war a moytu la mhm. lu nu dafa am loo xamante ni boo ko defee nit yaa ngi koy sacrifier mhm. te te baaxul te fii am na fu réew di toll booy wax ci luy dem nii mhm. da ngay wax lu la wóor li nga wax aussi mën na nekk mën na nekk noonam wala mu nekk sax ay xarit yuy tooñante wala yooyu mais mhm. fi mu toll nii yi kenn du ko kafe waaw ni mu def nag baax na bu dee dem na porter plainte d'accord aywa alaaji waaw xam nga euh, fem bi femme bi femme bi ko wax. yow ko gis nga ko dafa ñëw tudd turam waaw gis naa vidéo ah, femme bi benn audio bu mu def. def naa da doon woo kenn wax ko ne ko mi ngi tudd mu wax na moom turam ñooñoo xaw ma la wax. waaw noonu la wax ne noonu la kii tudd mu ne diw la. parce que moom femme boobu sax moo ko metti femme bi li mu wax wax turam. Hmm. ba noppi wax ci seen. ah femme bi dafa tudd turam moom. waaw dafa tudd dafa tudd turam. Ah, Euh, man nag gëm naa ni man moom gëm naa ni du moom man moom gëm naa parce que li tax ma gëm ko mhm. euh, bu dee ay vidéo ñi ngi génn mhm. mu leer na ni mbir mi yow la mhm. doo ñemee def visage découvert ñëw jàkkaarloog askan wi ne du man dégg que mu jàkkaarloog askan wi ne du man rek loolu tax na ma xam ni am na confiance ci boppam que ni mbir mi moom du moom waaw parce que bu doon keneen euh, dana ko doxalee neneen quoi maanaam dana mooy parce que comme que vidéo yi xam nga vidéo yi police bi muy njëkk a wane vidéo yi mu ne après gis nga yeneen vidéo ba may wax gars yi ma ne leen vidéo yi de li tax mu tardé parce que boo defu ndaak France 24 vidéo yooyu sax lañ naroon am mm-hmm. ma ne leen li tax ñu tardé mooy coupure internet bi xam naa ni ñi ko filmé woon peut-être dañu amutoon moyen wu partager ko ci jamono jooju mm-hmm. comprendre nga mais après am na yeneen vidéo yoo xamante ni bi gis nga ni nga xamante ni bi noonu la leeree ci internet bi mais man euh, leneen li garaaw nag mooy bu mu yem fii rek ci weddi na mm, dem na dem police def euh, plainte contre X parce que mm-hmm. li doy waar moom xamatut kan mooy ennemi parce que tey jii am na fu mu weddee mais am na koo xam ne jotut weddi bi du ko déglu. dëgg la dégg na. te photo mi ñu ngi ñu partagé fépp. ñu fo ñu parta partagé photo ñi nga xam ni tamit benn ñaar ñu jël photo daal ne diwa ngi nii nañ def attention ci mbir yooyu. Mhm. parce que mën nañ fee rey lu doomu jàmbur te fekk ne li ñuy wax demewul noonu. donc il faut que ñu moytu yenn yi parce que pareen saay nit ñi dañuy bëgg kut ko kut rek. Mhm. daal ne faagaagal nañ ki nga xam ne moo nekkoon kii doon def lii. Mhm. ñan ñoo ko faagal te bu boobaa dañ lay rey nga perte. comprendre nga donc il faut que tamit nit ñi bàyyi parce que yenn yi man jàpp naa ni ku koy def affaire acte criminel la. yaa ngi dégg yenn yi nga xamante ni bii moom la ñuy gis. Mhm. yenn nit ñi di ko def jël photo jàmbur taf ko ne kii mooy diw. Mhm. te ba noppi am na ñoo xam ne dañ ciy boole naan moo rey ñu bari. Mhm. xam nga loolu loolu. c'est que dafa pare di di identifier naan xoolal jaaro bi mu takk. moo nekk fii yooyu montre baa nekk nii cap bee nekk nii. waaw yooyu yëpp xam nga mooy wane li ngay wax leeru la rek boo demee ba bàyyi kanam nga ne ciy jaaro mooy mbir mi leeru la. <laughs> noo gisee lëndëmal askan wi moom euh, gis naa ko mu ni président Macky Sall na na na tëj France 24 maanaam seen signal bi na ko tëj maanaam France 24 lëndëmal askan wi waaw lëndëmal askan wi parce que moom nee na télé yi ko teg fii maanaam comme moom mi ngi wane ni kon télé yi bu ñu defoon liggéey bu mel nii fii dañu leen war a tëj nee na président Sall dafa war a couper signalu France 24 non non kii àndul ak moom lëndëmal askan wi ci télé la nekk di non <laughs> non non man Omar Faye man dama ko dama ko damaa xamatul ban tànk la kii parce que moom dafa wax ne leeral waaw askan wi moom dafa war a kaas télé boo xamante ni bii wane wut yëf yi vraiment koy loolu la war a kaas mais bu demee ba télé kii wane mu naan tey puis nee na euh, parce que li tax mu wax loolu dañoo weddi li nga xamante ni bii moom la Euh, moom la moom la waa police wax. waaw nee na da leen a te kay weddiwul dañoo indi ay. vidéo rek dañoo indi ay kii rek dañoo moom kay ci jëmmi boppam moom xaw na teg loolu wax bu fekkoon ne bi France 24 li ñu wax France 24 ñoom dañoo indi ay vidéo mhm. daal di wane ne lii gis nañ lii am na vidéo bi ñu kii même vidéo yi la. mais vidéo bi fii dañ koo dagg. mais fii la gën a continuer gis nañ ñii nga xam ne moom la ñuy wax. Mhm. ci wetu euh, gars yi. Mhm. donc loolu mooy li nga xamante ni moom la wax. Mhm. donc nag nañ euh, Amar Faye moomu man damaa xamatut léegi moom ci lëndëmal askan wi yàgg na ci mi ngi continuer encore lëndëmalaat parce que maanaam bëggatul lu leer quoi. Euh, vraiment vraiment man yërëm naa. war naa soppi tur bi moom tuddee ko lëndëmal askan wi. waaw jeex na de. ah mais ci lu lii xew. nga xam ne man su ma amoon moyen boobu dama koy def noonu ñoom Moustapha Diop sax ak waa jooju nu mu tudd Pape Makhtar gis naa ñu def ko. di wan di avancer di leer wan ni kat ñii ak ñii ànd. léegi nag nga ni dañoo war a couper télé boobu lëndëmal askan wi bàyyil askan wi ñooy lëndëmal waaw yàgg naa la wax nag looy liggéey ba léegi wanoo ma looy liggéey wax naa la ko nag Adja kon ñu joxante dig daje ba euh, ajjuma alxamis. incha allah demain incha allah. <laughs> waa kii lu muy def. léegi kenn dootul kii wati. ndox daw fii. léegi pour ah, daw am problème. ah ay ay tàccu leen si kaa nee xaw amatul ah oui oui kon boog. merci kon boog ba suba ak jàmm incha allah. ay jërëjëf merci beaucoup Sohaibou Diop li ngay indi am na solo.